avant ñu ñëw aussi assessment tout rek la woon waaye léegi yàlla tax na ba nga xam ni juntuwaay yooyu yëpp ñu ngi port am naa coordonnateur Mamadou Faye moo koy suivre mu may wax tey ci suba ne yëpp ñëw na ñu ngi koy bëgg di acheminer à partir de minuit di ko indi fii Ecotra bi nga xam ne mooy entreprise adjudicataire su ko indee dinañ leen waat yéen journalistes yi li ci nekk nag mooy que ay tuyaux la ay tuyo yoo xam ne xeeti tuyaux yoo xam ne yu baax la mën a adapté wu fii ci solu Diamniadio suufu Diamniadio parce que de l'argile gonflant tuyaux c'est des tuyaux spéciaux loolu su ngeen ko gisee da ngeen ko kañ parce que nag ñun suñu liggéey liggéey wër lañ bëgg et donc looloo tax ma ne temps bu mu ñëwee dinañ leen woowaat ngeen ñëw gis ko parce que assainissement bi dina nekk lu mot 29,7 neuf kilomètres d'assainissement donc usée 24,7 km d'assainissement d'eau pluviale, sans compter les routes, 20,5, sans compter aussi l'électricité, sans compter encore 8 châteaux d'eau avec 2, deux de stockage, avec des lacs qui sont aménagés. loolu yëpp nekk loo xam ne lu am solo usine de traitement waaw boo accompagné, accompagner mbir moomu yëpp may wax loolu il faut que nous xam le pôle Paul volonté politique c'est Paul espace vide un espace peu peuplé Nous faut construire un bâtiments suivant des normes d'urbanisation très poussées le faire. Paul, am Paul peut pas commencer le pareil. Ce c'est pas possible Paul allons en Malaisie visité à amitanyan. C'est Paul ça fait au moins ans Gabon nous la aussi Nous yambagul ni tam Nous rek vision président la ñu ciy ah di ñaan rek